Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. nit yu bari lañu nemmeeku fii ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw li ko waral nag di tey yamook ñaari fan ci weeru mai nekk bis bi nga xam eh, dañ doon dakkal wala sax dañuy tëj li nga xam rek révision exceptionnelle d'inscription, bi nga xamné amalon nañ ko ci liste électorale yi jamono ji mom mer ba futu lañu def ñi nga xamné ñoo di askan depuis sept h lañ fi nek waye depuis bobu légui léegi ñoo inscrire ci yooyu les listes. maa ngi fi ñëw ci suba Binta Dieng laa tudd samay doom yaa ngi jàngee ba parcelle may jaayee parcelle yaa ngi déglu ma dagg sama yitte yëpp xale yi mujj gi damaa woote pour ñu indi ma xale yi ah suba ba léegi ñu fi yendu barke rasulilaay. suba nga fi ñëw ci suba ndekki wuñu añuñu waaw xanaa xamoo woon ni liste électorale dañ koy arrêté tey. xamoon nañ ko xamoon naa ko mais vendredi ñëwoon nañu. xam nga fan yëpp feet la waa te non vote yi dañ ko bii passé nga bii bii ñu ne arrêté nañu waa te ñu suñu yi nag wax dëgg fa yàlla ay sénégalais lañu. depuis suba laa fi ñëw 8 heures damaa daw jàng sax pour ñëw ñu defaral ma ko dégg nañu 18 heures la ñuy arrêté affaire yi mais dégg boobale ku dugg da ngay génn doo inscrire wu. kon tey ñoom inscrire duñ kenn. inscrire duñ kenn ay liste yoo xamante ne nii yàgg na liste yooyu lañ jël dem dugal ko te ñun dañu war a voté si dëkk bi lañ bokk comme ñëpp est dugg nañ per nañ trois heures yoo xamante ne nii dañ ñëpp toog. pare li fi am ñëpp dañ koy déploré. soo gis Sénégal fichier bu ñu ubbi en moins deux mois nga tëj ko ci biir mois ci fête de Ramadan nga tëj ko. nit ñi bindu wuñ six mois nga xëy tey dañu ne la deux la nit ñi ñëw. on a perdu trois heures temps ici ñu ne préfet moo ne fichier yi dafa jeex. problème bi mooy ñu war a taal sunu añ yi xool sunu doomi sunu doomi suba ba tey sanguwul ñu nekk fi ndax voté ñu jékki-jékki ba si yàgg ñu ne ñu arrêté nañ voté bi jeex na loolu pour lan ñu teg ko Macky Sall di def loolu pour jël jël sunu euh, sunu carte d'identité yi utiliser ko moom du ko jëriñoo bu soobee suñu borom bu dee loolu la bëgg du ko jëriñoo. depuis kañ nga fi nekk. man maa ngi fi depuis sept heures ba tey sama doom mi ngi jooy ñu may woo ñi may maa dem parce que dañ maa rappel fekkuma fi ñu arrêté ba nii. loolu est-ce que jéem nga ñu bañ di dugal ñi leen neex seen i mbokk la ñuy dugal suba ba tey xale góor yaa ngi ñooy sama seede seen i mbokk la ñuy dugal. noo fa laa yor ñëw di fàtte depuis sept ba léegi ñu téye ñu fii. yow tamit inscrire. inscrire ñu parce que ba tey ay ñoo xam ne trois heures yi ñëw dañuy ñëw la dugg seen gelle lañ bàyyi ñu dugal. du ñu dugal ñun seen liste la yor après yow ñun suñu liste fa lañ ko tegee. mais yéen xamoo leen ni woon tey la ñu collecté fichier bi ngeen ñëw un peu plus. non xam koor gee taxoon. ak gars yi xam nga dañoo ragal ko mooy loolu noonu mais gars affaire yow loo xam ne 3 mois daan daan diire wala 6 mois nga def si benn mois. suñu problème mooy depuis suba ba léegi dañoo fi bëgg a bindu ñoo am problème mu bindu loolu mooy suñu ñu koy joytu parce que ñun ñu ngi fiy toog mënuñoo bindu. loolu la ah, bokk ñoo bindu loolu du yoon teguñu ko fenn te loolu warul mën am ñun ñëpp fii bokk dëkk jën Mamadou Gueye ak keneen ak bokk yem ay jeunes kese fi nekk bëgg bindu même pas 200 mais suñu problème moy lan la motax tax mënuñoo bindu Lo ma suñu problème Té bo fi sànni xër ñu né yéen ngi ni di yàq mère bi Té légui gis nga mu am dogal boo xamante ni sax préfet daal na koy jël ngir rek ñu daal di arrêté li nga xam ni moo di liste électorale yi nga xam ni inscription bi dafa waroon dem ba tey ci wi waaye sax lu ni mel sax mu mel ni jotul a yegg ndax ci booru 18 heures rek lañ daal di arrêté yi les inscription mu nekk loo xamante ni askan bi ñu ngi koy ñaawlu lool. mais buñ président dafa bu ko préfet woowee ay appel téléphonique warul tax mu naan arrêté nañ bu ko woowee dafa war a ne toog nañ trois heures de temps yoo xam ne dañ ko perte ñu yokk ci kii ñëpp mën a inscrire wu. nga jékki nan la nan la nan la appel téléphonique di remplacer arrêté appel téléphonique nu mu gën a fooree arrêté préfet moo woote nee na ma arrêté loolu fan la am. ban heure lañ arrêté. à la ko woo j'étais dans la bureau maa ngi woon ci biir bi. dugg naa pare cinq person mu ngi ci biir des nga ne préfet moo ne ma arrêté. ma ne ko ana ma ne ko ana arrêté bi mu ne ma appel laa jot jot appel lu mu mën a gën a fooree arrêté. ñu ne affaire bi mi war a jeex nga nga dagg ko 18h 18h nga dagaloo ñëpp seen liggéey te xool tey ñu yàq suñu sonné ñi yëpp am ñoo xam ne am suñu 3000 suñu 5000 tey lu ñu te voté wuñu le permanent lay doon. xëy liggéeyoo leen ngir mën a ñëw loolu kese moo ñu moo ñu tee xëy sept heures ba léegi ñu nekk fi. ñu am ñëg-ñëgu xol ñi nga xam ne nag naru ñoo bokk ci li nga xam ne moo di jeune yi nar a voté ci élection présidentielle yu 2024 yu ñu dëgmal looloo tax rek ñi ngi wane seenu métit. ah bëgg naa voté de bëgg naa voté de waaye nee nañ arrêté nañ. non du ma parce que loolu la Macky Sall bëggutoon bu bëggoon. waaw problème boobu laa am mooy problème non vote. ginnaaw bi loolu ñu ngi ñaan ki nga xam ni moo di njiitu réew mi di Macky Sall mu daal di leen di mayaat rek ab diir bu gàtt ngir rek ñu daal di mën a profito ngir rek daal di mën a inscrire ci li nga xam ni moo di liste yi ndax sax jàpp nañ ni date bi nag dafa daal di xat waaye tamit un mois yi matewul. te président bu ko mënee dimbali ñu te yàlla tax ci jëmm rasulilaay mu yokku ñu ko yokkal ñu ko ndax ñun ay sénégalais lañu bëgg nañoo voté waaw. waaw bu ko mënee yokk nag mu dimbali ñu ndax ñun ay sénégalais lañu ndax ku ne xam na ne no vote baaxul no vote mooy mënoo voté jànguma français mais mooy no vote mooy mënoo voté waaw. nañu dimbali nag ngir yàlla ci jëm rasulilaay dañ koy ñaan mu yokkaat affaire yi ndax ñu mën a changé suñu no vote bu bis boobaa ñu voté. waaw ci kattanu yàlla ak mbaaxam. waaw état du Sénégal li ñuy ñaan mooy ñu defaral ñu suñuy carte ndax dañoo war a voté ñun doomu Sonko yi na leer comme ñëpp dañuy voté par force wala bu yëngal bi jotee bu ñu génnee ñu xam ne lépp dëgg la. a ma dara lu may demandé Macky Sall na def lu ko neex. mais par force après 2024 bu jiite njabootam la jiite mais du ñun. bindu ci li nga xam ni moo di révision exceptionnelle ci liste électorale yi nga xam ni rek dañ ko dooroon ci juróom benn fenn ci weeru avril atum 2023 dakkal ko ci ñaari fenn ci li nga xam ni moo di weeru mai ci atum 2023 nit yi nag ñi ngi xaarani ci état ñu daal di yokku bile date ndax ñu bari sax jotu ñoo inscrire ci yooyu les listes ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification